Mohamedou Bamba Gueye mhm. nga nekk président mouvement la grande rencontre bokk tamit euh, ci autobine bu Serigne euh, Mbaye Lo mhm. mooy Babacar di mhm. fang fii ci Loyenne tey ñu gis ni bis bi nga xam ne dañuy màggalaat bu mag ñu bëgg rek nga ñëw tey euh, taala wa ñi nuyu Euh, di leen ziar di kontaan lool ci jotaay bi donc euh, comme ni nga ñu ci waxee rek je pense que nit ñi gën nañoo xam à travers des actions yo xamni ñing ko fi def ak ay rassemblements yo xamni def nañ ko euh, au nom du mouvement La Grande Rencontre donc euh, ñi fi nek ñi ñep tay nek des membres ci mouvement bi mouvement La Grande Rencontre donc euh, amna comité exécutif bu Thiès bi amna représentant Gossas aussi le docteur Cheikh Ibrahim Lo donc ñep ñi ngi fi donc mais nak tay dafa am ben spécificité parce que tay mom dañuy wax en tant que petit-fils de Cheikh Ababacar Lo Cheikh Ababacar Lo mi nga xamante ni moom mooy euh, sunu maam nga xam ni moom moo sanc Looyeen je pense que Thiès tey ñëpp xam nañ ko Sénégal le xam ko donc tey nag ñu nekk di le 125e anniversaire de l'exil de Cheikh Ababacar Lo donc juste rek nous revenir euh, tout ci histoire bi donc li en fait moy exilu Cheikh Babacar Lo bi nga ça s'est passé en 1892 donc ni duñ ko ci rek euh, en 1889 bi nga xamé ni ku tedd ki muy Serigne Touba euh, Cheikh Ibrahim Fall daf ko ni ko nga nord du Sénégal lu ay Saint-Louis loolu lépp bokkoon na ci jamono jooju nga xam ne yoonu murit mi ngi doog a taxaw donc mën nañ ni 1883 la yoonu murit taxaw boobu noonu ci la kilifa yi yoonu murit yëpp commencé nekk ku ci nekk di sanc say dëkk ak yu demee noonu maam Cheikh Ibrahima Fall def deux ans et quelques mois ci kër Serigne Touba mu daal di ko yeewi wax ko nag mu doxantu doxantu googu ñoom am na leneen luñ ci jublu woon ndax am na ñu bëri ñoo xam ñu ngi leen di dégg ci yoon wi ci doxantu Cheikh Ibrahima Fall boobu noonu ci lañ dugg see ci yoon wi ci lañ joxe ay responsabilité donc sunu maam nekkoon ci dëkk bu ñuy wax Ndóob Ndóob mu ngi nekk ci ci Gànjul ci ci ci ci Saint-Louis ci ginnaaw foofu noonu donc moom mi ngi fa nekkoon nekkoon fa mu xaddam moo fa nekkoon guide religieux nekkoon fa koo xamante ni jullit ñëpp moom la ñu moom la ñu wóolu woon moom la ñu joxoon seen bopp moo fa doon ilimaan moo fa doon mu xaddam moo fa doon ki nga xam moo fa daan takk sëy daan tudd doom yi moo daan jiite jàkka yi et cetera waaye dafa daan wax njabootam gi fu mu toll ni leen fi ma ne dafa am lu ma fi xaar ndax dafa am ak géñeer yoo xamante ni mi ngi jóge penku di ñëw jub fii bés bu fi bu fi yegsee ñun du duñu fi bàyyi. donc euh, bi nga xamee ni 1889 donc euh, Cheikh Ibrahima mi ngi doxantu ba jëm foofu noonu bi mu yeggee ba ci ëttu Cheikh Ababacar Lo daal di nuyoo jàll. mom non la dan def bu yegge ci keur kilifa rek day daal di nuyoo daal di jàll bi mu nuyo sama mam dal ni ko ndongal yi na ngeen def sa saafonte def fu daara ba demee yu mel non ba chebre bi mu taggo ci gàttal euh, Cheikh Ababacar Lo ñaan ko mu toogandi tuti ndax bobu amna lu mu doon bëgg xol niko ndax man nga fanan Cheikh Ibrahim nangul ko ko legui bi mu ba suba ñu yendu mu ñaanat ko lu mel mu nangulat ko ba mu mat ñetti guddi biñu démé ba ca ngon ga nak ci la wo njabot gi yépp xamal leen ni manam lèr gog mu doon xaar jéñor gog mu doon xaar yegsi mu di cheikh ababakar euh, mu di cheikh ibrahim fall babil Muridina, donc xamal leen kon ni lu lu lu lu ni ki tey lépp loo xamante maanaam jox nañ ko suñu bop li ñuy wax acte d'allégeance jox acte d'allégeance ci yoonu murid kon donc fofu la digënté Cheikh Ibra ak sunu mam Cheikh Babacar Lo commencé donc mu nekkoon en 1892 légui bi loolu amé nak am na ay lu bari lu ci am ci euh muy Cheikh Babacar Lo ak wa dëkk ba ak administration coloniale bi fi nekkoon ndax ñom mënu ñu a concevoir ak dayo ak dimension bi Cheikh Ababacar Lo amoon mën a ànd ak koo ni mooy Cheikh Ibrahima Fall ci ñen ñi dañuy doute ci pratique l'islam ndax ñàkk julli gi ak ñak wor donc mu confusion bu mag te ñu man leen ko nangul itam ndax ñom dañu am lu ñu am commencé di plaindre ils se sont plaints ni kon ñu ci à juste titre. mu situation yi dem ba envenu ci lañ demee wax ko tubaab bi donc tubaab bi euh, par multi euh, ci yoon yu bari fexe daal ci gàttal ba contraindre Cheikh Ababacar Lo ni ko mbokk yi bëggatuñ nga nekk fi il nga sàkk pexe donc ci la yabalee benn ci ndongoom yi ca Cheikh Ibrahima Fall wax ko situation bi xamal ko ko laaj ko nag nan la ñuy def ci la ko Cheikh Ibrahima ni ko diggante Thiès ba Njaareem foo nu foofa nekk nu fekk la fa. donc mon petit ci en 1892 donc pendant plus d'une semaine nous avons nañ plus de 80 personnes en 1892 je pense que nous avons eu xam man nga 80 personnes ci ba pendant plus de 8 jours donc ça montre un peu la dimension de l'homme ça montre un peu l'attachement que bi nga les populations de la contrée amon nañ ko cela montre aussi l'espoir bi nga xam nit ñoo amon nañ ko ci ba tax bu rek ñu ko donc tey loolu la ñuy célébrer te je pense que mat na faal jamono jooju melul woon nii bi ñuy ñëw foofu noonu jamono jooju melu woon nii dafa nañ ci histoire ku mel ni Cheikh Ahmadou Bara Ndiéguène rek la fi fekkoon ci ci ci ci ci kii yëpp donc loolu la ñuy màggal nii tey euh, nañ Touba ñi jóge na ñu jógee bitim réew ñëpp ñëw di ko fi dalee at mu jot ñu di ko fi def donc loolu moo waral ñun ñu ñu daje fii tey ñu yi muy Kër Sëñ Morlo ñëpp xamoon ko aussi ci li don liggéey ci quartier bi nekkoon chef de quartier bu jóge fi en 2012 Amne réalisation yu bari on peut le mettre sur son compte donc voilà un peu le contexte bi nga xamné moñu fi dajalé tay donc euh, ñun nak ñuy doomu sëñ Morlo, mi nga xamné ni sëñ Lo moko ko jur sëñ Abdoulahi Lo sëriñ Cheikh ababakar Lo mom moko jur voilà. alors euh, tey euh, kër gi kenn réeréwu ko ci biir Sénégal. Mhm. dañuy ne sax titre foncier bu Médina Fall. Mhm. ci waa Loyenne la né mhm. li ni mel ba tax na chef de quartier bi. ci toujours ci biir Loyenne lay génne. Euh, ñu bëgg rek euh, nga laal ñu foofu xam nga comme ni ma la donc ñom biñu ñu fi fii euh, amul woon dara àll la woon donc ken nek fi woon donc ñom biñu ñu donc Cheikh Ibrahima tegtal leen ngir ñu ñëw fi ñom dañu commencé di défricher di dindi garab yi di gor commencé sanc donc damay wara rétablir ben vérité Madina Fall amul titre foncier loolu danaa ko wax bu dul kër Cheikh Ibrahima génnee ci penc

xel mi waaye tey kii wala ki ñu jàkkaarlool bu demoon tey bëgg pré banque ñu mën a def gaz kër gi donc pour wax ni titre foncier amu fi mais nag loolu c'est sur le plan administratif mais je pense que sur le plan je veux dire psychologique mën ñu jàpp ni looyeen nag am na fi titre foncier ndax impact bi mu fi am sur tous les domaines que ça soit social que ça soit religieux ak yeneen ak yeneen ndax li may wax looyeen dañ fi jouer benn rôle bu important dama ni bu fekkoon ñoom échoué nañ seen mission kon man na fal du mel ni mu mel parce que 125 euh, ans bataille ambiance bi fi am contexte bi mu nek contexte religieux bi daara yi fi formé wu kenn xamut nu mu toll do fi xey soo ba ngoon te déggoo fi sikkar wala xasaayid wala et cetera donc man naa ni looleen réussir nañ sen mission mom moy vulgariser euh, yoonu mouride bi ak les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul loolu nak moy lan à travers lan à travers jangal nit ñi alcorane à travers wax nit ñi ci yalla di len delloo ci yalla à travers di len tuddel sen doom yi di len ñaanal sen sen ñi wacc liggéey à travers aussi di dox pour renforcer le lien social bi nga xamni ne mu ngi nekk entre nit ñi donc permettre une stabilité sociale fini ci dëkk ça a une valeur ajoutée extraordinaire té je pense que c'est un rôle de l'État État mom moy ki nga xamni lolu garant de la sécurité et de la paix nationale donc l'ONE, lolu depuis plus d'un siècle ñing ci dox di ci wax té lolu nak wax dëgg yalla statut dëkk bi yëpp nangul leen ko voilà. alors euh, sëñ Bamba gis nañu ci biir mouvement la grande rencontre. mu mhm. nekk mouvement citoyen. Mhm. am beneen doxalin. Mhm. maanaam ñëw fekk foo xam ne dafa sooxe. mu teg fa tànkam. wala loxoom lu mel ni ci ay cours de renforcement de capacité. ci wàllu élèves yi. gis nañ tam ay formation jigéen yi. Euh, yi ni mel tey ñu gis ndaje bi. nan ban euh, naka nga koy lëkkalee. pour mun a génn tey ci li nga xam ne toujours. mooy ne dañoo dañoo mouvement wala dañoo ay parti politique. tey seen doxalin. yéen en tant que ay doomu soxna ngeen laal ci wàll woowu nan koy lëkkale. tout à fait loolu facilement lañ koy lëkkale parce que li may wax rek euh, mën nañ ko tuddee mission mën nañ ko tuddee rôle mën nañ ko tuddee vision lu mu ci manti doon c'est ay actes yoo xamante ni ñun dañ ciy réfléchir bu baax baax pour agir ko donc mën nañ ko tuddee mission ak vision ci walu wa keur Cheikh Ababacar Lo walu doomu soxna yëpp ndax doomu soxna yi li nga xam ne moom mooy seen rôle déjà moom mooy. maanaam gindi askan bi fexe ba askan bi dund ci ay conditions yoo xamante ni dañu am seen dignité dañ dañ dañ dund ci am seen diine ba pare maanaam jëm kanam loolu moom mooy tax a jóg religion en général. donc looyeen li ma la wax rôle boobu ñu def dañ ko doon def par rapport à leurs moyens ñaan lañ amoon jàng alxuraan lañ ma ñu ngi koy def boobu ba tey am na ñu bari ñoo xam ñoo leen encadré seen famille ba tey ñu nekk fi ay kilifa tey looyeen looyeen rek la famille looyeen am na énormément de cadres man mii di wax ak yow ci la bokk. c'est un docteur en microbiologie te moom tamit euh, euh, ci wàllu yéen la bokk am ñoo xam des inspecteurs de de l'éducation amna na ay docteur am na lépp mi ngi fi te ñooñu ay lañu donc ñun on s'est dit que mission boobu dañ koy continuer dañ koy continuer comment dañ koy continuer dañuy lëkkoole maanaam jamono di xew ci jamono maanaam par rapport ak li ñu jàng par rapport ak suñu parcours dañuy jéem a xam nan la ñuy fexe ba aider population yi ba ñoom itam ñu ñu ñu xool seen i bëgg-bëgg dox ci loolu nag. Euh, organisation le lat, d'adjolo la lat, réflexion le lat, idéologie le lat, ça demande beaucoup de moyens sur le plan intellectuel sur le plan humain ça demande beaucoup de ressources humaines donc maintenant, nañ boole ñaar que nous, ñun li nga xam aujourd'hui en tant que petit-fils de Cheikh Ababacar Lo mooy mission am la continuer Nous est œuvrer pour Dieu à travers les hommes li ñuy def loolu rek la te loolu nag ñun à travers le mouvement euh, membres yi ñu ngi nii dañuy nous dañuy wër on discute avec les gens dañuy def ay enquêtes sur le plan éducatif dañuy def ay enquêtes sur le plan autonomisation des femmes ñu ngi waxtaan ak daara yi actuellement gars yi ñu ngi liggéey ci projet yu demee noonu ñu ngi xool aussi politique yi nga xamante les autorités locales ñu ngi koy def est-ce que c'est des politiques yoo xam ñun on juge que euh, moom mooy ay politiques yu efficaces ñu ngi xool aussi ban aspect critique lañ ci indi etc etc. on est en pleine vraiment réflexion pour xool de manière efficace et vraiment de manière pointue nan la ñuy pour aider les populations à aller de l'avant en général. Alors, voilà mouvement ngeen yor mouvement citoyen mhm. boo xam ne day liggéey ci mhm. euh, delluwaat li nga xam ne mooy les valeurs mhm. bon tey dañuy gis yenn parti politique yi ñu ngi jëm ci ay élection législative est-ce que tey xalaat nañu mouvement la grande rencontre dem jàppale benn euh, maanaam benn entité politique bu loolu amee ci yan base ci yan anam ngeen di xool pour jàppale yooyu pour ñu mën a askan de toute façon dama koy wax mu leer que ni ñun dootul amati benn euh, élection wala en tout cas loo xam dañ ci woo population bi te ñun duñ ci prononcé wu jël ci position donc c'est pour dire que euh, fan yi di ñëw di ngeen dégg suñu communication wax ban position lañ jël ak kan lañuy andal parce que aussi dajaloo wuñu ni rek pour tok di dem ak ñëw donc war nañu mëna xol dëkk bi yan orientation moom moo fi war jëm ak kan lañ mëna andal donc ñun pendant les législatives di ñëw donc dinañ ci wone suñu bopp wax fan lañ fété donc euh, on est en train d'en discuter et bientôt dinañ ci def communication C'est vraiment c'est une discussion bo xam c'est assez large par rapport ak suñu membre yëpp ak fépp fu mëna nekk ci Sénégal parce que damay def ben ben point rek parce que que dëkk bi li fi xew jamono yi dafa doy y a beaucoup beaucoup beaucoup de bruit beaucoup de euh, de suspicion ci sur les hommes sur les décisions et cetera je pense que aujourd'hui jot na tamit nit ñi nga xam c'est des vraiment citoyens simples et sains ñi nga xam li leen ñor moom moy defar dëkk bi aussi ñu wax seen position ñepp xam ko donc ñi ngi waxtaan ak ñëpp ah amna na ñoo xam dañuy dem seeti leen waxtaan ak ñoom am na ñu bare bari ñoo xam ñëw nañu waxtaan ak ñun wax ñu seen gis-gis wax li ñu bëgg ci ñun ñun ñu wax leen li ñuy doxee donc pour vous dire que du présenter liste loolu ce serait vous dire euh, voilà mais dinañ euh, am taxawaay boo xam ne ñëpp dinañ xam fi ñu féete te duñu ko nëbb te lépp lu ñuy def it dañuy def loo xam ni dañ ko gëm exactement li tax ñu ñu bëgg a jël position yooyu parce que dañu gis surtout au niveau de Thiès jamono ji li fi xew c'est le temps de le dénoncer man je suis vraiment désolé en tant que fils du Sénégal et particulièrement fils du Thiès le plus may en termes de communication en termes de wax buy Thiès parce qu'on est souvent absent de Thiès que ay xuloo la man c'est extrêmement désolant C'est loolu dañ koy dénoncer avec toutes les forces Moi je dis qu'il est temps que respections la population il est vraiment temps que respections la population La population est nan la leen respecter vraiment discuter ci ay sujets xam mais seen Medina Fall Thiès du ay dëkk bu am xaalis la plupart des gens amuñu moyen mais war nañ leen a wax dindi ci seen bopp seen doom yi di jàng mais nan la ñuy ba ñu réussir seen jàng mën nañ leen a wax demain nan la ñuy def ba seen doom yi nekk ay cadre di leen dimbali. war nañ leen a mën wax ni leen nan la ñuy fexe ba créer ay espace économique yo xam ne nit ñi dañ fi ñëw pour pour dëkk bi jëm kanam c'est inadmissible que tey Mbour est devant nous économiquement lan moo ak position géographique bi Thiès nekk parce que tout simplement euh, dañu jël affaire yi cantonné ko des histoires de personnes te loolu on doit aller au-delà c'est-à-dire on doit discuter de vrais sujets Moi, dëkk bi fan la jógee fan lañ toll ñi nga xam ne ñoom ñooy jiite dëkk bi lan lañ fi def physiquement yan moyens lañ ko defee et cetera il y a énormément de questions à xam dañ ko war a wax ma dolli ci dara Thiès nak, santul Silla Thiès santul sec, Thiès xam nu mu sant Thiès kai la sant Thiès sar la sant Thiès Lo la sant Thiès sant yëpp la am kenn moomul dëkk bi nañu ci xel yi nous toog avec la population sur des projets structurants Nous Thiès ces dernières années gouffre bii mu dugg nan relancer économiquement ba mu sa brillance d'antan ba Thiès ñu mën rayonner parce que si nous toll stratégiquement au niveau économique nous devons jouer un rôle capital capital sur le plan géographique nous positionné sur le plan économique nous euh, nga une euh, prédisposition à xam on n'est pas loin de la petite côte ku Dakar fi ngay ñëw bu ñu doon déggoo désengorger Dakar Thiès la ñu waroon njëkkoon xalaat et cetera et cetera donc c'est des questions yo xamanteni c'est stratégique et économique yo xam loolu lañu wara war et ça nous désole nous en tant que fils de Thiès que on reste vraiment sur à interpréter les hommes les événements plutôt que les stratégies et les idées et donc loolu ça fait partie aussi des choses qui ont qui qui qui xam moy tax ñun ñuy agir aujourd'hui damay fàttali ñepp ni Sénégal deku deku diine la dëkku diine la 95 de musulmans ak suñu yeneen mbokk yi nekk fi kon nañ wàcce xel yi xam ni àdduna amul solo que ni politique au sens noble du terme dafa war a ñëw pour aider c'est quelque chose d'extrêmement civilisé warul doon ay xastaate warul doon ay xeebaate et cetera et cetera man j'appelle à toutes les respons à tous les responsables politiques de delloo ci seen xel c'est-à-dire ñu jël un peu de hauteur ba am loo xam ne dañ koy jommalee wax ci seen lamine am ay actes yoo xam ne dañ koy jommalee defal seen bopp le jeu il est démocratique ku ci nekk ak sa doole nga ñëw wane am nañu la gëm am nañu la weddi mais que le meilleur léegi su ko defee day tax ñu yok sutura kilifa yi fi ne parce que Thiès machallah allah dafa bëri ay kilifa diine mais donc ñu bayyi xel ni Thiès lolu dañ ko wara préserver nous tous ensemble muy doomu soxna ak kenen ñu préserver lolu gëna gor gorlu ba ba Thiès liñ ñu fiy dégg doon lu rafet Thiès liñ ñu fiy dégg doon lo xamanteni dañ koy naw légui nak pour terminer message bi nga xam mom la bëggoon lancer c'est euh, par rapport ak looyeen man je dis que aujourd'hui euh, le chef de l'État a entamé un projet de modernisation des cités religieuses moi je pense que même man en tant que dom Loyentu man ma warone porter pour le plaidoirie boobu noonu dama foog ni autorité thiessoise war nañ am ben pensée envers Loyen parce que wax deug yalla nak sa ñu leen wowe ñi ngi ñew ci événement yi ñi ngi ñi ngi am nañ ay colère yu baax ak ñom mais euh cité religieux bu ne manam domi dëkk ba ñom ñoo mëna donc je pense que rappeler à l'entente de mon propos que ni joue un rôle extrêmement important euh, en ce qui concerne la stabilité sociale de notre de notre quartier et de Thiès en général donc nous, nous ñu aussi dans ce projet là de modernisation de la cité religieuse de l'ON. Nous, en tant que fils de l'ON, nous portons le projet Bobo, nous avons sur le plan architecture, etc. Mais j'appelle euh, je lance un appel à toutes les autorités que ni peut-être dinañ ñëw seet ci len waxtaan ak ñom mais nañ ci bayyi xel loolee nag baaxoowul di feug ci ay buntu yu démé nonu mais je pense que lolu c'est un c'est une plaidoirie bo xam ne koy lancé à l'endroit de toutes les autorités que ni nañ ci bayyi xel et en général waxale aussi euh, maison religieuse yi fi nek yépp ci Thiès que ni nañ leen jàppale ci lolu tamit ñu ñu rayonné ñu defaraat seen bu mbubb seen yépp pourquoi aussi parce que événement yu melni ay nit dañuy jóge fu donc en termes de sécurité, en termes d'accueil, d'équipement, etc., c'est extrêmement important que Volley Bob aussi nous, développe. Donc c'est le dernier message que je voulais lancer, sur bus qui Voilà.